mbokki Tiwaawan asalaamualeykum léegi balaa ñuy door waxtaan bi dama bëgg micro bi ñu génneel ma est-ce xam ngeen di tax may nañ ko dindi ndax Macky Sall gannaaw bi mu tappalee tappaleem ànd ceeg administration ak justice ba suñu liste titulaire nationale ñu écarté ko ci loo xam ne du yoon kon tey bu ma RTS ñëwee enregistré lan lay jëriñ ndax duñ ko mës a génne amul njëriñ na nag RTS mooy télé boo xam ne suñu impo moo koy financé ñun ñu jël ay milliards yi ko jox at bu ne waaye élection ba élection la RTS di jàllale opposition est-ce que loolu jo jaadu la bis bu ne mu jël Macky Sall suba ngoon ku dégg bëccëg te ci texte réew mi dañu ne dañu war a def des émissions plurielles l'opposition dafa war am accès à la RTS mu teg fa un directeur général boo xam ne politicien APR la bu élection jotee rek ñu gaawantu ñëw rek ñu dañuy couvrir moo tax ma ne leen dindil leen ma ko sànnil ma ko fële ndax soxlawul ko mbokk leen di nuyu di nuyu waa Tivaouane yëpp di nuyu sëñ Babacar Sy Mansour bi nga xam ne mooy xalif général Tidiane di nuyu mbooleem seen njabootu Haj Malick Sy teg ko ci loxoom waaye nag di beral nuyoo suñu allié ci politique suñu sëriñ suñu xarit muy sëñ Moustapha Sy moom ak njabootam di seede fii nag dama ko bëgg a fii li ñun dañoo am alliance politique ak parti bu tudd PUR muy parti boo xam ne seede naa fi ni wuyoo na turam parti bu PUR la di allié boo xam ne allié bu mat allié la ndax PUR du parti boo xam ne dangay ngay ànd ak moom di gëstu di vérifier wala di surveiller tes arrières parti la boo xam ne boo àndeek moom lu ngeen décidé def moo ciy jiitu bu dee cotisation mooy njëkk a joxe bu dee mobilisation kenn du ko ci ëppale bu dee génn day génn kon ma seede ko fii ni ñun de kontaan nañu toog ci suñu àndandoo ak PUR di ci gërëm sëñ Moustapha Sy mi nga xam ne mooy responsable moral bi waaye di ci félicité militant yépp nag te jiital ci ki nga xam ne moom lañuy toogal bis bu ne ci ay réunion muy Cheikh Ahmed Tidiane Youm ñuy nuyu ñëpp nag ci njaboot gi xam nañ ni parti bi mu ngi ci loxo Youm waaye du ci def dara loo xam ne réeroo na ci ak capitaine kon lu ñu décidé rek ñoom ñoo ci ànd ma leen di nuyu di nuyu capitaine bu baax. di wax nag waa Sénégal ak waa Tivaouane bu ñu nit ñi dugal ci ay débat yoo xam ne du suñu débat ñun alliance politique la ñu am ak PUR muy alliance bu dëgër Yewwi Askan Wi diine gu nekk ngi ci tarixa bu nekk a ngi ci catholique a ngi ci jullit nga ci te gis ngeen liste bi suñu tëdd liste yu bëree bëree bëri bëri ay catholique lañu ñu am ci kontaante bu rëy ku gëm religion traditionnelle sax mi ngi ci yeewu askan wi tarixa yépp a ngi ci biir yeewu askan wi kon suñuy ànd alliance politique la ñu ànd bëgguñu kenn utiliser suñuy alliance politique génne ko ci cadre politique bëgg a gëmloo nit ñi ni am na yeneen yoo xam ne mun nañ ci profité di la ay compte wala di solde compte loolu ñun suñu yoon nekku ci alliance politique la am bu dëgër te enjeu yi nga xam ne moo ñuy interpellé fi mu toll nii enjeu yooyu dépassé na ay nit dépassé na ay kilifa enjeu yooyu c'est la survie du Sénégal c'est préservation des valeurs morales fortes du Sénégal enjeu yooyu mooy fexe ba fitne gi nga xam ne mi ngi mi ngi mi ngi yóob Sénégal ñu anticiper ci loolu ba fitne googu ñu dàq ko. kon bu ñu dugal ci débat boo xam ne du suñu débat kenn ku ne am na sañ féete fi nga féete ñii dañoo féeteeg Macky ñii féeteeg ñun ñun nag nangul nañu kenn ku nekk sa position parce que citoyen bu nekk nag am na sañ-sañu am opinion ak koo munti doon waaye du ñu nangu ku handicapé suñu coalition ci loo xam ne ñun fekkewuñu yéeguñu suñu yoon newu ci lool dañ ko bëgg mu leer nañ kon kuy wote ci Sénégal ak luy sa gëm-gëm ak kuy sa sëriñ ak diine goo bokk ak xeet goo bokk lenn moo la war a intéressé mooy ban discours mooy discours bu war a mën a sauver Sénégal ban leadership mooy leadership bu war a mën a sauver Sénégal loolu rek moo ci am solo kon waa Tiwaawan bu leen jum ñaari yoon ndax juróom benn weer ci gannaaw dañoo dem élection waa Tivaouane opposition la ñu yaakaaroon ni opposition la ñu woteel ndax Benno Bokk Yaakaar dafa teg candidat am waa Tivaouane ne bëgguñu Benno Bokk Yaakaar ñeneen ñëw taxaw ne ñoom opposition lañu ñu bokk waa Tivaouane gëm ni ñu opposition la ñu bokk ba woteel leen ndekete ñooñu ak Benno Bokk Yaakaar def ci ak sotti si la waaye li wóor ba wér mooy teewoon opposition lañu teewoon bëgguñu Macky Sall teewoon wàcc nañu kon waa teewoon opposition benn la fi fii ci Sénégal bu wér kéeg mooy intercoalition Yewwi Askan Wi Wallu te nag te waa teewoon xam nañ ni bu ñu wotalee Yewwi Askan Wi Wallu du ñu dem assemblée nationale ñu naan gars yi wëlbatiku nañu dem ànd ak Macky Sall loolu moom xam ngeen ko kon waa Nioro nañu voté massivement le 31 juillet pour l'intercoalition Yewwi Askan Wi ak Wallu ndax tamit xam ngeen lan mooy enjeu élection yi Cheikh Tidiane mu wax na ko léegi enjeu bu njëkk enjeu bu njëkk mooy coowal troisième mandat jeex fi tàkk ndax xam ngeen ni Macky Sall buñ ko dumayee duma yu métti te man gëm naa ni nañ ko duma duma yu métti ndax sénégalais yeewu nañ xam ngeen ni néew ma troisième de mais booy moytul mandat bii du ko yeggali day daw balaa mandat bi jeex ñaareelu enjeu bi mooy lan mooy fexe ba cohabitation am cohabitation nag